voilà tey nag li ñu tax a jóg dañuy naqarlu gestion bi nga xamante ni moom la administration yore hôpital bi ndax dañu déposer plateforme revendicative waxtaan ak ñoom la ñu signé ak ñoom defuñ ci dara bañ tolloo foofu ñu ne tey nag foog ñu jéebaane li nga xamante ni moo xew ci hôpital bi ndax fii la ñuy suturloo pour ñëw ci li tax ñuy sitting bokk na ci sama naataangoo bi wax na ko muy recrutement abusif yi ku wax recrutement abusif mooy hôpital bi dañ ko doxalee de sorte que mu am benn commission des ressources humaines képp ku ñuy jël ci hôpital bi da nga war a jaar ci commission bi ñu waxtaan ci xool ndax hôpital bi bëgg na loolu wala bëgg ko wala attan ko wala attanu ko ñu doog ko jël loolu benn la ñaareel bi dafa am lu ñuy wax prime d'intéressement ñenn ñi di ko wax motivation muy loo xamante ni ñu liggéey la ca weer yële passé at weer bu ne su dee rek vingt cinq pour cent yooyu dafay ñëw ci personnel bi personnel bi rek dafa am ñu ñuy waxee ay stagiaires stagiaires yooyu loolu mooy seen salaire bu fekkente ne da toog di premier ba le vingt cinq te ñooñu joxoo leen seen xaalis yaa ngi leen di sonal yaa ngi leen di lor beneen bi ci topp mooy hôpital bi ñaari services yi nga xam ne c'est des services d'appui au diagnostic ñu koy tuddee laboratoire ak rajo ñu am ay réactifs yoo xam ne dañ koy manqué réactifs yooyu dana tax ba bilan préopératoire yi mënatuñ koo def am na yeneen bilan yoo xamante ni dañ ko sous-traité alors que machines yi ñu ngi fi su fekkoon jënd nañ réactifs yi kon normalement war nañ mën a def analyse yooyu te loolu day bokk ci prise en charge euh, maladie parce que malaat mënul hospitaliser fii ba pare muy def ay analyse di ko defee ci ay clinique loolu du dëgg du yoon beneen bi ci topp mooy augmentation yi nga xamante ni état attribué na ko personnel yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci santé dañu bëggoon li nga xamante ni moo féete ci suñu boor ñu koy dugal ci bulletin de salaire yi waaw fay gi ñu koy fayee nii neexuñu bu ñu sañoon mu dugg ci salaire bulletin de salaire loolu mooy garantie beneen bi ci topp mooy euh, formation personnel bi loolu tamit dañoo bëgg lañ ci daan liggéey ñu dolli ko ci loolu la ñuy wax formation continue ñi nga xamante ni dañuy jàngiwaat te la ñuy jàngiwaat bu ñëwaatee dañ koy exercer ci hopital bi mu yokk ay recette dooleel ñu ba tax luñ bëgg rek la ñu réglé ko loolu ci la bokk moom tamit léegi nag CMU bi loolu nag dañuy lancer un appel à l'État parce que moom mooy fay CMU l'hôpital et en cours du dette d'un milliard yoo xamante ni bi nga xamante ni jox nañu tout dernièrement xaalis li ñu jox dafa tuuti cent millions te hôpital bi CMU bi moo ko sonal loolu nag suñ sañoon état bi mu dégg ñu xam ne ne hôpital Matlaboul Fawzeyni mi ngi sonn lool lool lool li ko sonal mooy CMU bi moo ko sonal beneen bi ci des mooy bâtiment pédiatrie bi sunu administration bi ñoom ñoo ko initié mais boobaak léegi mënul fexe ba avancé te loolu tamit xaalis bu bari lañ ci def te wax nañ ne toujours nañ xool nan la ñuy saytoo xaalis ba nga xamante ni dem na foofu parce que loolu tamit leeruñu leeruñu beneen bi ci des mooy bâtiment bu mag bi nga xam ne état bi tamit moo ko fi moo ko fi tabax boobaak léegi dañ ne woon te màggalu daaw lañ koy ubbi kenn ubbeegu ko ba léegi kon loolu il est temps nous lançons un appel a à ñu jàppale ñu ci parce que loolu rek moo mën a souffler loolu marché yi moom wóoruñu waaye lenteur bi ndax dan ne woon ci at lañ koy tabax léegi mu ngi ci ñaari at donc léegi lii lépp bu saafarawul wax nañ ko fii lañ ko mën a waxee adduna bi yëpp dégg ko ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa te ŋànk wàllu wér-gu-yaram gi dégg nañ ko bu fekkee jóge nañ fii te defuñ ci dara on passe à la vitesse supérieure mooy day série de grève ba baa ñuy régler loolu et puis nag dañuy dénoncer nag gestion bi nga xam ne moo am ci hôpital bi c'est une gestion boo xamante jaarul yoon même bokk na ci sunu agence comptable bi parce que fii li nga xamante ni mooy génn xaalis bu fekkee ki ko war a génne duñ ko gis guddi duñ ko gis bëccëg te amul benn délégation de pouvoir loolu day téye hôpital bi voilà. merci.